jaajëfal nañu leen bu baax ci ànd bi ak top bi nga xamante ne rek ñu koy topp ci site internet bi di bës 24 Sénégal li gën a fës ci bopp xabaar yi nag dañ koy doree wàllu immigration clandestine lu toll ci ñeent fukki nit ak ñeent rek daal nañ leen teg loxo foofu ca diwaan bu Tëngéej bu ñu sukkandikoo nag ci haut commandant bu gendarmerie nationale nag ci effort yi nga xamante ne rek ñu ngi ko doon def ngir xeex nag ndaw yi nga xamante ne rek dañuy jël nag gaal yi di wutali diwaan bu bitim réew bu ñu sukkandikoo nag ci rapport bi nga xamante ne rek lieutenant colonel Ibrahima Ndiaye daal dina koy xamle ci sunu natangoy Seneweb nee nañ nag ci guddik ñaar fukki fan ak benn benn jàpp ñaar fukki fan ak ñaar ci weeru septembre ci atum 2024 compagnie bu gendarmerie bu Tëngéej nag daal nay teg loxo ay candidat yu doon wutali rek diwaanu bitim réew mu nekk nag mbir moo xamante ne rek daal dinay xewee foofu commune bu Bambilor boobule bilan nag ci seen opération lu toll ci ñeent fukki nit ak ñeent rek lañu daal di teg loxo ci ñeent fukki nit ak ñeent yi juróom yi ay mineur lañ ñett ñi ay soxna lañ waaye nag bilan ba nii la demee fanweer ak juróom benn yi ay sénégalais lañ